ñëw nañ fi ngir daw lu dul dëgg ak métti Mohamed moonu wax ni dem leen Éthiopie. buur ma nga fa boo xam ne ci dëggal lay dox. li ngeen di jàpp ne du yoon mooy li leen di lor. ngeen ne lu tax Mohamed yebal leen fi. te yaa ngi bokk ci waa ahlul kitaab yow gannaaw gëm nga yàlla yow da nga wattu. yow sang bi seen wax yi dafa mel ni kuy màndal ku mar rek. seen lay wi dugg na ma. léegi faw ma déglu leen yow Amar yow ku baax ki yow ku tedd ki dañoo nekkoon askan woo xam ne dañoo réerun toppi ay yàlla yoo xam ni ay yàlla yoo xam ne doj la ak bant dañ daan lekk medd di mooy yàlla dañ daan sàggane dëkkandoo yi ñi nga xam ne yàlla mën na leen gën ci wàllu wërsëg noggatu ñee yorul dara ca la yàlla yónnee nag ci nun yonent bi ci loolu lañ nekkoon ba yàlla yónnee Muhammad mi nga xam ni xam na ne ay jukkoom yu sell ak dëggoom ak njubam woo nañu ci lu xam yàlla te ko te bàyyi sunu yàlla yi nga xam ni bant rek la woon ak doj ndax da ngeen di fenloo suñu yàlla yi ñun du ñu jaamu ay xërëm du ñu jaamu bant wala ay doj leer gi ne ci ñoom moom la ñuy jaamu te daf ñuy dendaleeg suñu borom. lu jaam ñëpp xam li ñëpp xam yow Amar. lu leen seen diine digal. xamal nañu ni yàlla nanu topp yàlla mi nga xam ni kenn rek la. di di julli di wax dëgg tey sàmmanteeg àq yi te matali wëllër yi ak dëkkandoo yi. na ngeen moytu tuur deret ci lu dul dëgg. ngeen moytu njaaloo maanaam mooy yàlla ak wax ju ñaaw na ngeen moytu sàcc alalu jirim te ngeen moytu lu taraxal jigéen jigéen lan la seen diine wax ci jigéen jigéen moo góor ñoo tolloo ci lislaam jigéen moo góor ñoo tolloo fa yàlla di jënd jigéen ñi di leen dundal ba noppi di leen jëriñoo te li ngeen leen di sant buñ ko buñ buñ gantalee sax ngeen mujj jaay leen nan nga mën a bañee jigéen ji nga xam ne moo la ëmb ci biiram ki nga xam ne moo la nàmpal ba nga nekk xale bu tuuti ba nga nekk mag te yow Amar. lu tax ngeen jëmbat seen yàlla yi nga xam ne ne yàlla mii kenn moo leen di dundal. soo sunu yàlla ji moo yàlla ñëpp moo yàlla Ibrahima di yàlla Moïse di yàlla Zakaria ak Jean ak Jésus Christ. du leen teqale ñeem yonent yooyu am na lu jóge ci yàlla ñëw ci ñoom. ku leen xamal tur yooyu yépp alxuraan ji nga xam ne moom la ñu yónni ci Mohamed. Mohamed Mohamed mi nga xam ne fii lañ ko xamoon mu di jirum di sàmm ay jur. Isa si bant la daan liggéey ci suuf su màgg sa. dëgg-dëgg daal moo wax ne li Mohamed indi ak li Isa indi ñi ngi bawoo ci benn leer. yow sang bi ñii de boo déggoon li ñuy wax ci yonent yàlla Insa sax du la neex. lu ngeen wax ci Insa. te ñoom nee nañ sax yonent yàlla Insa nit la rek comme ñun. wax leen wax leen li ngeen wax ci Insa. ñoo ngi lay wax. li Muhammad wax ci moom. mooy kàddu yi nga xam ni wax na ko ak soxna Mariama. waa laaj leen yonent yàlla Insa nu mu juddoo. ndax seen alxuraan jooja ngeen di wax indi na dara ci juddu Insa waaw ndax man naa ko wax bu ma ci amee ndigal jege sil te wax bismillahi rahmaani rahim tudd na Maryaama ci téere ba ni nga xam ni moom la génn ci biir bokkam yi dem fa sore ca la nëbbu nag ci seeni bët ca la ko yàlla yónnee ruuxam ga mu ñëw ca moom ci bindu doomu Adama mu ni ko maa ngi nekk ci kaaraange sunu boroom fekk maa ngi ragal yàlla mu wax ko ndaw laa lu jóge ci yàlla sunu boroom ngir jox la doom joo xam ni ku sell lay doon Mariama ni ko man nan laa mane ame doom te mosuma jote ak góor te góor sax mosuma teg loxo mu ni ko yàlla lu bëgg loolu yomb ko te dana doon te dana ci nit ñi te yàlla lu mu dogal rek loolu dana am صدق amul ci suñu diine ak seen diine lépp dig wii yow amr doju oor du tax sax ma jébal leen ñi jaafar demal yàgg ñi nga àndal dund leen ci réew mi nu mu leen soobe ba yàlla dogal seenug dellu mbir mu mënta nekk la mu mënta nekk la Mohamed mu ngi ŋàññi sunu kilifa yi ba ci dëkk yu sori yooyu loolu baax na waaye danañ ko def mu ah, sori màkka waaw kan moo ko fay aar Abu Taalib dañuy dogoog moom Banu Hashim ñu dogoog ñoom ak képp ku ànd ak ñoom ci Quraysh dootuñu jaay Mohamed ak ku ànd ak moom dootuñu jënd ci ñoom duñ leen jaay kër duñ leen jaay lekk duñu séq ak ñoom dara duñu takk ci ñoom ñoom it duñu takk ci ñun te ñu jël leen nag sànni ji leen ca xeer ya wala boog ñu génn ci diine Mohamed ji ci at Muhammad ak ñi mu àndal ñuy jànkoonteeg ay nattu ak i bala waaye bi xarnub ñetteel xadijatu ndeyi jullit yi di daj ay coono ba ni mu faatu at mi Abu Taalib ci la génn àdduna muy naqar mu nekk atum njàqare itam Suhayl lii la dañoo bëgg a xotti luñ fi taaf lii moom dafa ruslu dindi leen li ngeen fi taaf kenn ci yéen bokkul ci nitu Muhammad mbir mi sax yitteelu leen ñun danoo bañ a xeex ak ñoom yéen a ngi nii di lekk jamono ju lenn seen askan di dee ak xiif ci montagne yi ci kayit wi ci la ko kilifay màkk yi signé woon soppi ci lenn nag te dogu wuñ ngir soppeekuko ko delloon fi ngeen jóge woon ci dem lii de mbir mënu fexe ci guddi la yéen a doon wut kéemaan kéemaan gu réy ngi nii ci seen kanam kiimaan goo xam ne ki gën a tuuti xeebu ci mbindee fi sunu boroom yi moo ko def ak max rekk tey not na leen yéen sangi mag seen rëy gi toroxal na leen seen waru gi daaneel na leen mu ngi nii tey ak lu ngeen mën a def seen kàttan gi seen tiitër bu rëy bi seen tiitër bu rëy bi ak li ngeen tabax lépp ciy tappale mënta feeñ ci kanam màgg sunu boroom kayit waa ngi nii xool leen desu ci lu dul yàlla sa tur wi yow sunu boroom yàlla nee na lu ngeen mën a def ci àdduna ci tappale dinaa ko feeñal ba mu génn ma def ko ni pënd buy naaw wax yàlla rekk ay dëgg yéen sangi màkka amatu leen fu ngeen jëm jamono ngi ñëw seen mbon gee leen di jeexal ba ngeen jeex takk taxawaay bekk a màgg Hamza mii doon rëbb gaynde tey muy rëbb ay gunóor waaw waaw bulul tey di ëllëg bulul tey di ëllëg jot na ma wax ak yéen ndax sama waxtu jige waaye du loolu dong tax ma woo dama leen a woo ngir lu gën a yéeme loolu dama woo Muhammad ngir jubale leen waa moom naka la nuy woowe ci loo xamante ne bii ñun ñoruñu léegi daal ne ko na yemale ŋàññi gi muy ŋàññi sunu yàlla yi nanu bàyyeek sunu diine ñu bàyyi bàyyeekoo diineem su bëggee loolu nag nu d'accord ak moom waaye moom benn kàddu rekk la sàkku ci yéen moom bu sàkk woon fukki baat yu mel noonu ñu jox ko waaye nag baatub yàlla kenn la kenn la mukk ndax dangeen a ñemewuleen dégg li muy wax dëkk bii nga xam ni dafa weddi dëkk nga xam ni dafa weddi njaxar li tegaloo na démb ñàkk nañu xadijatu nga xam ni nekkoon na di ndey ci maan tey abu taalib desewuñu kenn ci màkk koo xamante ni wéeruwaay la wala muy làquwaay sinaan yonent bi de dafa bëgg a sori màkka léegi te bu dafa bëgg a génn dem taayif taayif goo nga xam ni amul abu sufiyaan amul abu jahlin amul abu jëm ci taayif gi nga xam ne mooy ñaareelu dëkk ci dëkki arab yi ñu ngi gàttanu yonent bi mu ngi ànd ak doomu jiitleem ci yaakaaram ngir mu am ndimbal ci giir gi ñuy wax saqiif ñi doon ay sang ci taayif gannaaw bi mu ñàkkee yaakaar ci xurey ragal leen yàlla yéen samam nit ragal leen yàlla ragal leen yàlla ragal leen yàlla yéen samam nit ragal leen yàlla nasaraan bu jóge wa jox ko lii tànkam yaa ngi nàcc mi ngi ñaan boroomam yow sama boroom ci yow rekk laa jàmbat sama néew doole gi ak sama néew pexe mi sama doyadi gi ci kaw nit ñi yow yaay ki nga xamante ne yaay kiy gën gi kiy yërëm yaay boroom ñi nga xamante ne dañoo néew doole yow yaay sama boroom ci kan ngay wéer sama mbir ci aji sori joo xam ne dafa may noggatu wala boog ci noon boo xam ne danga koy wéer sama mbir su fekkente ni wàcce woo ci man samer duma faale kenn waaye nag sa jàmm moo gën a yaatu ci man maa ngi muslu ci sa leeru kanam gi nga xam ne leeral na bépp lëndam te itam ci la mbirum àdduna ak alaaxira yépp yéwe na maa ngi muslu nga wàcc ci man sa mer wala boog mu dagan ci man sa sànj mujjantal bi yépp mu ngi ci yow ba keroog ngay gërëm amul benn pexe amul benn doole lu dul ci yow yàlla rek. bu ma sañoon daal ngeen dem. Taïf doonatul barab bu wóor. mës na jànkuwanteeg bis bu gën a metti bis bi. yàlla daal di wuyu gannaaw at moo xam ne jaayante ak way ajkati madina yi cig yellu ci lislaam ci demonoy aj ga ca topp ci càgganteeg waa xurayshi ñu def ay kuréel yu bokk ci aws ak xasraj di jaayanteeg yonent bi ci di ko aar di ko dimbali ñu dëppoo ci ñoom ñooy yaakaar yenent bi gàddaay ñëw ci ñoom ngir seetal seen réew mi ci lor ak tuur deret ndax jaayante ba du mat fekk ñu xam ne li nuy jaayante lan la def leen ndànk ak dige bi ngeen def weddi ngeen weddi ngeen mboolem yàlla yi da ngeen di dige ni julliti doxandéem yi ñooy doon seeni mbokk yéefar yi doon seen noon donte ñu leen jege leen yéen a dige toj seen yàllay xeer yi niki it niki yàq te lakk seen xërëmu bant yi yéen samay mbokk bu fekkee ni mën ngeen nangu loolu kon jébbalu leen bu fekkee ni dangeen am leneen looleen leen ciy ragal bu leen jébbalu waat naa ci ki la yebal ci dëgg ne dinañu jaayante ci aar la ni ñu aaree suñu bopp suñu doom ak suñuy ñooñ ak suñuy ñooñ ci nii ñu fas yéene jaayante ak yonent yàlla bi képp ku jalgati charte lu la ci fekk yaa ko def seede nañ ci yàlla ak yonent bi ne ñun waa xawsu ak waa xasrej ñun ñooy waa ansaar te dinañu jaayanteeg yonent yàlla ci dégg ak topp ak yaatal lislaam ci sunu bopp sunuy doom ak sunuy alal ubbi sunuy xol sunuy buntu kër ngir ñi gàddaay jëm ci ñun te di suñuy mbokk jullit bisub tàqale diggante lëndëm ak leer ñiy gàddaay génn nañu nekk mbooloo àndandoo def ay mbooloo te seen xol ya dëppoo ci baatub yàlla ñoom ci seen biir ñi nga xam ne ñooy way gàddaay yi ci yoonu yàlla bokkoon na ca Ousmane ibnu Affan ak Abdourahman ibnu al Awf ak Ubaydat ibnu Jarrah ak Omar ibnu al ak ñi jiitu woon ci gëm ci way tedd nga yi dëkkoon ci waa Xurayshi ak ñu am doole ña juróom-ñaar fukk wala lu ni topp ci ay soppeem ñooñ ñépp ñu ngi toppoon ca dox boobee lanu ca namoon nag mooy jubbanti tolluwaayub jamono ak jubbanti doomu aadama yi ak soppi jubluwaayu arab yi waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee nag mu nga fa desoon ngir am xolub yërmande di xaar ba way gàddaay yépp génn màkka allahu akbar waaye bis bi yonent bi sallallahu alayhi madina ci la atum lislaam tàmbali ñu gën koo xamee ci atum hijra muy atum gàddaay Mohamed nekk aw xeet ndax waa ma Madina yépp wëlbatiku na jub jébbalu ci moom sa ñooñ jaayante nañoo moom yow nga tëdd rek ci sa nelaw yi ba tey yow ibnu Salul ñàkk nga nguur ndax say génn tëdd ci sa lal bi rek ba tax nga ñàkk sa li bul ma yedd yow Abu Sufyaan léegi yéen a ngi ci ay loxoom seen njëg yi dootul dem saam te yolleekuwuñu wuñu wala ñu am ndigalu kilifa bu bees bi nekk ci Médine bi nekk ci Médine léegi nag lan ngay def damay xaar day bàyyi xel ba kañ. ba keroog araab yi di jóg ngir faagaagal ko ngeen mën a jotaat seen dundin bu njëkk. léegi jamono yi nga toog war a xaar lan mooy sa ci loo war a def. damay dugg ci lislaam bàyyi kook sama dëkkook cosaan loolu moom déedéet. Madina jar na def loo mënul. loolu danaa fekk la moom. waawow Hind ba faw nag. Ibn Sulul dugg ci diine lislaam di fomp sa kanam ci suuf si juróomi yoon par bis par bis <laughs> loolu mën nga muma ko moom de du ko jar sax bu dee li ñu bëgg am nañ ko ibnu selul am na pexe moo xam ci ne ko bu yàgg ci ne ko bu yàgg Mohamed dañ koy faat hmm? kaay leen xool jël nañ ci bépp giir benn waxambaane bu dëgër sama dooma leen jiite ànd ak ñoom sama dooma leen jiite daañu ko dóor benn dóoru góor deretam daal tasaaroo ci biir giir yi loolu sa xarat la njortuma loolu de moom dina des di woote de ak i baatam xalaatu Abu Jalil boobu mooy lijjanti mbir mi. wa ilal abad. Alioune moo nelaw palaasam man de gone gi mu ngi xamut ne mu ngi lor bakkanam ban nit mooy reyante bu ñu xaar yoon wu ne naan am ñu fa dem ndax ci kanamam dara nekku fa lu dul saxaraa bi téeméeri giléem képp ko indi Muhammad muy dund wala muy faatu ñoom ñett dong lan Muhammad ak Aboubacar ak ki leen yoon wi muy ureeqa te kooku gën a xam nit ñi àll ñëw la ñu dem lan moo tax ngeen dàq ko fii marina fii du yoonam seen jeexital yaa ngi nii. ay dox ndem yi dox di jëm sow. man xam naa sama liggéey. ku mel na yow xam na. ku mel na yow xam na. jeexitalu yoon bi. ñëw la ñu dem ci ñoom ñaar. yow Muhammad génnal ñu nag yow ba nga delluwaat ma kay dund moytu leen moytu leen xunt moomu de dafa bëri ay jaan Muhammad yow say mbir leer na génnal fii kat lëndum jargoñ baa ngi fi yàquwul pitax maa ngi tàgg fii fii mënuñoo fay ne. léegi nag nañu jublu bër Saalumu Madina. noonu la ñuy gisee ne kàttanug yàlla feeñ na di dox diggante yonent bi ak dee pexe mu jëm ci mbooloo mu nekk ci kawi fas lii mooy ràbbug jargoñ bi Abubakar dugg na ci biir xunt mi ngir yiir yonent bi ak mu mujjug lislaam yonent bi mu ngi defal àndandoom bi Abubakar ngir mu am kóolute ne ko bul jàq yàlla ngi ànd ak ñun gannaaw xunt mi nag laxas nanu ay fan amul benn dogaan bu dog yonent bi ak àndandoom ba ak ki leen di tegtal yoon wi ci ndànd fay-fay gi gannaaw jéegooy nit ca Madina niki booba jullit ñi ñu ngi bàyyi xel dikkug yonent yàlla bi te seen xol ya ñu ngi ragal ak a jàq ba xaw naa lakk ndax seenoo dara déedéet ba léegi man de sama xel mépp a ngi ci Muhammad ak Abubakar man de xaw ma ci luñ nekk tax ci seen tukki mi yonent baa nga ne allahu akbar allahu akbar yonent yonent baa nga ne waxuma laa goreel ngay bokk ci ñi sama kër ngay dal yow yonent yàlla bi sama kër moo gën a neex a dalal kilifa ci kër yi ci medin te gën a jekk ci dalal la boo ko nangoo wala boog ci sama kër yow yonent yàlla bi waay waa Yasrib yéen ñi nga xam ne yéen ay lan saar yonent bi bi alayhi salaatu wasalaam bëggut a gën lante kenn ci kaw kenn yéen nit ñi déglu leen déglu leen yonent yàlla bi nee na bàyyi leen gëléem gi ci sagoom ci ndigal lay dox ku gëléem bi yës rek mooy nekk kër yónent yàlla bi xalaat bu ñaw a ngi noonu ndax doxalinu gëléem gi du merloo kenn bismillah ñu taxawal fii kër rasulullahi ci barab bi lañuy tabax jàkka ji njëkk ñuy jaamoo yàlla yenu nii ci kaw mbaggam yi moom koy xanaa coono bi nga daj ci sa tukki mi doy na sëkk demal toog noppalu noppalu ñu liggéey noppalu waaye moom de daa bëgg liggéey rek dafa continuer liggéey kon kay yonent bi dañuy jàngale liggéey jaamu yàlla la yow nag ñaatan nga liggéey bi noppi na ci na mën borom naka la ñuy wootee julli kàddug jullit mën na yëg li julli mën naa noddu lu mel ni Amar ibnul Xataab ak lu bari ci jullit ñi seen kàddu bu ci yonent bi àndee yonent bi nangu na waaw yonent bi nangu na man bul am sikki sàkk sax lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo la ko tànnal yéen samay bokki gëm yàlla yonent bi sallallahu alayhi sallam wax na ñeel muhaajiriin ak ansaar ne na ngeen bokkoo ci yàlla mbokk ak mbokk ne bépp góor ci madina lëkkaloo benn góor ci muhaajiriin te na ko jàppe mbokkam na seddook moom lépp loo xam ni am na ko na ngeen lëkkaloo yéen ñépp nekk di ay mbokk ci yàlla ndax yoon la may séddoog li may suturloo ak sama jàmm jàngal li Mohammed de def na boppam buur waaw sama doom ja moom na mu def mu ngay julli comme ku tàggoog sagoom loolu tàngul ba mel ni luy lakk say loxo kër ga yépp lay lakk buñ ko tojul fi mu ne nii mooy digle di tere di tërali yoon ni bëggee lislaam de moo raw sax ni mu bëggee aw askanam waaye jullit yi jóge Xuraysh ak ña ñu fekk Médine ñeneen topp ak ña ñu fekk si ak ñay xeex ngir ñoom def nañu mbooloo nekk benn bu leen waru ci wax ji munta dëgëral ngëmam ci giiri arab yi mbir mi kay fii la sa dëkkandoo ak sa bopp ñoo yam ci budul lorante wala defante lu ñaaw te jigéen kenn dootul bokk ak moom te du ci ndigalul ay bokkam moom xam na li muy wax de dafa bëgg ni jullit ñi ak borom téere yi ñoo yam jàngal li muy wax ci yahuud yi ci Médine yahuud yi am nañ seen diine jullit ñi am nañ seen diine ak ñi leen jiite ñépp ak seen bopp kenn du ci tàqale kenn lu dul koo xamante ne bii dafa tooñ <laughs> xoolal léegi jigéen ñi sax dañuy doon desu ci li dul giléem mu jox ko àqam alxuraan dafa wax ni amul lenn luy dukkat luy dox ci suuf walla luy naaw ak i laafam lu dul ni ay xeet lañ yu mel ni yéen Muhammad yàq na lépp ba ci sama doxalinu dëkk am rëbb dana daanu seen kaw ndax ñoom nangu nañu suñ njaboot ji di taxawal loo xam ne ña ngi koy tuddee dëgg di wor sunuy dégg-dégg ak sunuy yëg lii doy na danañu ut lu ko faj lépp lu ñu fi gàddaay bàyyi woon ci makka ñoo ko moom léegi seen kër yi seen giléem yi seen garabi tàndarma yi seen alal ba ci seen doom yi ak seen doom yu jigéen yi ñépp ñoo leen moom way gàddaay yi yéen way gàddaay yi déglu leen xibaar yi ma leen jëlalee Makka fëkk nañ seen bépp moomeel fa Makka amatu leen lenn lu leen dese ci alal yaxantug Abu Bakrin bi jaay nañ ko ba ci sax kërug yenent bi jaay lépp li ngeen amoon dolli ko ci seeni njëg dara deseetu leen fii ak foofu yéen ndax doo leen xeex ngir nangu seenug moomeel. ndax dangaa dégg ci mbirum xare dara. ndax am ngeen beneen pexe. wallahi duñ xeex mukk ci lu dul ndigalul yonent yàlla Muhammad jóge ci yàlla. bàyyil xel li ma la wax. xataloo leen ñu benn yoon. bàyyil xel li ma la wax. yéenay sunuy gan bu doon benn dogu mburu rekk ñu dese ñu jox leen ko. dellu leen ci seeni liggéey dañuy xeex ak ñoom yonent bi wallaahi ñii ñoo ñu génnewoon ci suñ kër ya jël suñ alal ya ci suñ kër ya te dëgg duñ ko màbb mukk caaxaan du yëkkati ko mukk ñun bu ñuy dem dañuy dem ci ci sàmmuk yàlla ak sa sàmm yow rasulullahi rasulullahi du ñu tooñ mukk yow yonent yàlla muhammad waaye su ñii suñ leen bàyyee dañuy ñàkk suñ teraanga ginnaaw bu ñu génnee suñ suuf sa dañuy xeex ak ñoom luñ ma sa am rek màkk jël nañ ko def ko ci seen njëg mi te suñ tegee suñ loxo ci seen njëg mi danañ ko jot luñ ma sa jël ci noonu danañ ko delloosi ci danañ ko nangu jégglu maa ngi jégglu yow yonent bi maa ngi yëkkati sa kàddu ci saw kanam dama meroon rek te yàlla dong tax ak diine yàlla ji xeexal ak bi sallallahu alayhi du ñu xare te amuñ ndigalul yàlla dellu leen bilaal xoolal jant bi waxtu julli jotagut leen yàlla wàccee ci yonant bi ci alxuraan bismillahi rahmaani rahim digaleef na ñi nga xamante ni ñi ngi xeex ak ñoom ndax dañu leen a tooñ yàlla nag aji kàttan la ci dimbali leen ñi nga xamante ni dañ leen a génne seeni kër ci lu dul dëgg ndax dañoo wax rekk ne yàlla mooy suñu boroom sadaqallaahu al aliyu mooy ji njëkk ci lislaam yéen muhaajiriin yi ak waa lansaar na ngeen wattu bu baax dénkaaneb yonent bi ci xare bi bu leen lor gone bu leen lor mag bu leen lor jigéen bu leen lor ku feebar bu leen dog garab bu leen fekk ku nekk ci toolam di ko jëmbat ngeen koy lor na ngeen xeex ak ñi leen di tooñ ak ñi jël seeni alal léegi nag na leen dem ca teeni ba Badar waa Xurees yéen waa Xurees gànnaayu leen Mohammed Mohammed a ngi ànd ak góor yi ne dañuy dogaale seen cëgg yi ñaata la seen lim bi toll nañ ci ñett téeméer waaye ñenn ñaa ngi war ñun de daanu am ñaar téeméeri xarekat seen giléem yi nan la toll juróom-ñaar fukk am téeméeri giléem ak juróom-ñaar fukk danaa sëf ñaar fukk samay giléem ñu safay sëng daa bëgg mu nekk feet gu neex xeex bii laa yoon xaar nag xeex bii laa yoon xaar nag xeex ba amul pert lépp nga ñaay la a gaawee ci jëgg ba nga wax abi sufyaan ne ko na dem ci ba dar yi ànd ak ay góoram daa ñu leen fa fekk ngir Quraysh dem nañu dogale jullit yi fee ca Badar nee na nga dabu ci leen foofu waaye wóorul ñu fay dem ak ko mu màkk mi naa jaar ci geneen suuf goo xam ne dana sori Badar dangaa war a dem Badar waaye su ma doxee guddi gi danaa mën a moytu Muhammad ba ba fajar ak ni nga toll ci sa biir askan te sama yitte mooy jàmmi giléem yii ndax lii mooy suñu alal lii mooy suñu alal jël na teeni badar yi kii mooy dugg ci ñoom dafa bëgg a sànq boppam ñu réer ñi ñoo dugal naka jekk seen bopp ci pax Abu Sofyaan jaar na bët sow ngir sori Badar jëggale mucc na te gis naa ñu bañ a xeex bañ xeex lu ñuy songee xeex ci suñuy ñooñ nga xam ne mën naa dem ba ñeent fukki at maanaam xare doom ak baay la ndax sa doom ji ni wax Xuzayfa ma ngay ànd ak ñoom xale la boo xam ne daal war nañ koo duma Makka moo gën a rëy ci leneen lu dul moom sa doom yi bopp mooy Walid ne leen kon <laughs> xanaa man maa matul wala damaa soxor te xam ngeen ne man <laughs> soxoruma léegi nag li mu leen di wax mooy nanu xeex ndax moom kese lan dese te su jamonom weesoo dootul dellu xare ndax noppi ngeen delluwaat leen fi ngeen taxawoon gaaw leen ku nekk na taxaw fi nga taxawoon ku nekk na taxaw fi nga taxawoon Mouhamed sakklu na teen yi dañoo war a yegg ci teen bële bu leen jógee seen place taxaw ba jot ndigalul yonent bi sallallahu su noonu ñëwee te sànni leen fett